sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad ñu leen di siyaare bu baax di leen invité ngeen abonné si kanaal bi ndax vidéo bu ñu def rek ngeen mën koo am si sens seen mbokku Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad la ñi nga xam ne ñoo doon laajte waat wàllu bayre njaay bi incha allahu rabbi defaraan nañ ko amaan na ñi nga xam ne ne à distance wala danga nekk sa biir néeg di jaay wala foo mën a nekk di jaay fexeer rek yow nga siy diwu di wis ci li ngay jaay lépp loo ko wis du fanaan muy bare njaay bi nga xam ne ne foqet la képp koo dendal feeg yow jëraloo kooku du jaral kon Bayre Ndiaye moom amaan na si Kun Fayakoun TV waaw ah, yéen ñi nga xam ne yéen doon woote si numéro téléphone mooy numéro téléphone yi xam ne moom la ñuy affiché fii rek moom ngeen di woote foo leen mën a nekk ñu commandé defal leen commande livré bi livré leen ko wala ngeen ñëw si kër gi jël si ko muy wàllu Bayre Ndiaye bi ak lépp looy jaay nag. ak yow mi nga xam ne ne danga bëgg tamit bayra boo xam ne ne pour mbooloo la wala bayra boo xam ne ne nit ñi dañ lay bëgg nit ñi dañ lay sopp nga xam ne ne ku la gis bëgg la muy bare njaay boobu tamit am na fi am bayra boo xam ne ne pour wàllu jigéen la am bayra boo xam ne pour wàllu góor la jataay boo nekk danga fay saf-sàpp moom bayra boobu am na fi waaye bayra bi képp nga xam ne moom yaa ngi jaay bëgg la ngay jaay du fanaan fexeel ba am si bayra bi di wis si li ngay jaay rek yow di si diwu lépp looy jaay du fanaan surtout ñi nga xam ne noo yor restaurant di jaay lekk pour képp ki nga xam ne ne lekk na sa lekk bu demee day delsi wala day indiwaat yeneen i client nga xam ne ni yow moom képp ku ñam sa lekk moom dootu dootu la bàyyeeti boobu moom am na fii nga xam ne ne moom fexeel rek ba def ko si biir place bi benn bi nga takk ko si buntu place bi moom mooy xëcc nit ñi nit ñi di dugg si biir place bi ku romb dugg ndax euh, la la nga fay yëg moom moo tax kon Bayré Ndiaye boobu moom am na fii nga xam ne mooy Kun Fayakoun TV incha allahu rabbi boo leen wootee ci numéro téléphone yooyu rek foo leen mën nekk daal leen ci dimbale di ci maye tamit benn secret li ilaa fi Xuraysin ku jàng neuf fois sallallahu ala muhammad neuf fois nga ne ko yenente bi jaayal njaay moom njaay moom moom du fanaa incha allah may nañ si loolu maxu guy tamit képp ku ko am boo koy wis si le boo boo koy wis si li ngay jaay wala nga def ko si ndox boole ko xorom di ko diwoo lépp looy jaay tamit du fanaan incha allah rabbi kon ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex